ñuy seetaan à travers Equivox TV nuyu nañ leen di am mbégte ak contentement nag di jàkkaarloo ak yéen saa su nekk rek ci seen journal de ren à chaque fois rek ma ci ànd ak ki nga xam ne moo di Babacar ñu leen di faram fàccal li nga xam ne rek mooy duppee ci làmb ji Babacar nuy naa la. maa ngi lay fay soxna Ami ci loo nekk. maa ngi sant yàlla te door nga ma bësalax ma. ci naka. <laughs> sa weex. non sa blanc la paix. aywa ah, la sol dafa rafet de. Ah, baax na waaw man xamu blanc bi moom ci jàmm laay dox. te man eh. dama ne jàmm moom moo gën lépp moo tax dama koy bëgg chaque jour. mais damay nuyu téléspectateurs yi di leen jaar leen ñaanal jàmm. Eh. mais blanc bi moom kenn na fi jaar rek. Eh. sama doomu ndey bi ci marché asalem Omar Tawa taalibe Baye Niass borom Saalum Omar Tawa. am na solo waaw. jërëjëf Babacar voilà mbokk téléspectateurs yi ñu dem seetaan revue des titres daal di dellusiwaat. asalaamaaleykum vendredi 9 avril 2021 dañuy ñëw ak yéen ci yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy dooreeti ko mu mel ni ki yëglikaay bi di sunu làmb nag moom tey xëta mu njëkk la mu jëxëy fësal daal maanaam la nga xam ne nii moom lañ fi waxoon wala boog ñu tàmmoon di ko dégg mooy wax waxeet mu mel ni ki nag wax waxeet ja tey fa mu xewe du ca politique ba waaye ci biir làmb ji nag la xëy amee ka ko def du kenn ko dul Eumeu seen mu taay si nga mu pikin moom daal moo wax waxeet sunu làmb nag moo xëy tey wax nu loola yegg nu boobu xibaar la ko waral nag Eumeu Sène ci boppam moo fi waxoon ne dootul bëre ak Balla Gaye tey muy taw suba muy naaj xalaatatu ko ci àddinaam waaye nag mu mel ni ëmma jóg na ca wax ja de ndax ëmma seen ne na daal diggante ma ak Balla Gaye fi mu nekk ni moom ne na ko daal moo ci des ne te sama combat ak Balla Gaye numéro 2 du yomb maanaam daal fi mu nekk nii loo ci mën a dégg daal ama seen moom kon am xelam la ca nekk mooy jàkkaarloot ak Balla Gaye 2 wax ak moom wala bëre ak moom kon nag moo tax yëglekaay bi jàpp na ëmma seen daal la ñuy wax wax waxeet ñu daan ko dégg ci politique ba ñëw na ci làmb ji te ko fa andi moo di ëmma seen mel ni nag Balla Gaye 2 mu bëgg a bëreel moom Balla Gaye 2 ak rakk ja Sa Thiès ñu nga def benn coalition ànd ak Ama Baldé di jàppalante ci seeni combat ndax ñoom ñetti ñëpp ku ci ne am nga ab combat mel ni kii nag ka nga xam ne nii moom moo di Modou Lo yëgle kaay na bu yëgoo jóg ci boppam de ndax seul contre tous la maanaam ñëpp ànd maanaam jëm ci kawam ña ànd mooy Balla Gaye Sa Thiès rakkam ak Ama fas yéene nag jàppale Ama ngir mu daan mooduloo kon moo tax yëgle kaay bi jàpp ne Modou daal fi mu nekk nii moom soo bëggee dégg-dëgg mooy seul contre tous sunu làmb moo xëy ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne yëglikaay bi xëy na ñëw di ko wax mel ni ki nag doomi Suisse ja nga xam ne ni moom mooy Patrick Smith moom ma jang jongante ak. rëg-rëg la ko ci mujj day fekk neexul ndax yëglikaay bi daal nee na maanaam ak dënnu moo wàcc ci koom soo bëggee dégg-dégg ndax nag maanaam dóor yu métti yëkku rëg-rëg dóor dóor yoo xam ne daal yëglikaay bi na 62 coups ci 62 secondes yoo xam ne nii moom lañ jongante sénégalais bi di rëg maanaam jàpp doomu Suisse bi duma ko duma duma duma duma duma ba mu noy nepp moo tax rëg-rëg nag ba mu pare ci duma yem doon duma tubaab booba la moo xam ne daal nee na ndamam lii daal waa Sénégal la ko may te ñoom la ko déjee ndax nag gis na nin koy ñaanale ak ni nga xam ne nii noonu lañ koy jàppale yëglikaay ba mu xëy ñëw tey dinu ko wax mel ni ka nga xam ne nag moom muy lif sportu réew mi muy mataar ba wax na ca làmb ja la moo xam ne daal nee na ren moom saison bi bu kenn xaar mu tëj yëglikaay ba xëy wax na ko la mu xamle nee na même buy taw sax ku bëgg a bëre da ngay bëre maanaam ku bëgg a tëgg sa làmb da koy tëgg parce que ku ne xam na ne làmb maanaam toog nañ fi atum yàlla amul moo tax fi mu nekk nii moom tëjub saison bu ko kenn xaar wala nga kay xalaat yëgli kaay baa xëy tey ñëw wax nu loolu nekki noonu moom sunu làmb leneen loo xam ne nii buñ demee ci Equivox dañ ka fay fekk mel ni que amateur simple yi moom kontaan la ñu def que leen bégloo du kenn ku dul Fallou njaay la ñuy remercier ndax jàpp nañ ne Fallou daal li mu def moo ko waa Ndiaye production dara gënu koo neex ndax ku toll yi nga ne danga koy sargal di ko sargale lambi simple maanaam ñoom jàpp nañ ne fàllu njaay dafa delloo mbattu sa ca ndaala ndax ku ne xam na Yékini la mu def ci làmb na mu wanee boppam moo tax ñoom daal jàpp nañ ne kon samedi suba ku leen dëgg ca arène national ca 4 million yi Fallou Ndiaye ya di li simple da leen naan massa ndax nag danañu ñëw la ca des mooy drapeau Baol sans frontière ba itam neex leen ca lool lool ñu ko wax nag mooy amateuru simple ya micro Equivox la ñu waxe foofa mu mel ni kii li simple booba ba tey yëglikaay maanaam buñ ci ñëwee ba tey ca sunu làmb nu ngi nuy xamal ne daal fa nga xam ne moo di cekku taal moom tey jii moom maanaam vie production teg na un million yëglikaay ba moo xëy ñëw tey dina wax lu mel ni ki noonu bu buñ fa jógee danuy toxu dem fa nga xam ne moom moo di record record moom lam ñu xëy xamal moo di rëg ginnaaw ba mu dumaa ka nga xam ne moom la doon jonganteel gañe ko dóor ko dóor yu métti am na koo xam ne nii moom hélas gay lan koy wax di champion du Sénégal ci wàllum boxe jàpp na ne rëg-rëg gañe na de waaye na mu mamanaam na mu bëree wala na mu defee combat ba daal jaarut ci aw yoon teguwut ci aw yoon loolu mooy li nga xam ne nii moom la ñu wax ba tey yëglikaay bi def na beneen gëstu ka ko def mooy Abu ci at yi nga xam ne dañoo bëgg mu romb 45 ans ati mbëri moonaam daal moo tax nag mu sampab laaj nee na kii di Bombardier dem na war a jongante daa am lu ko dal ba tax jongantewul ama seen bërki démb gis nañ ne maanaam nan ka gisee ñëwee wunu kon est-ce que romb 45 ans dina nekk lu wóor mu mel ni que Omes Diagne moom wax na lu leer nañ omes nee na daal li am ba des nee na ñiin fukki at moom bu fa gu ko am ci làmb wala boog sport de combat nee na mbir yi dafa war a jeex tàkk waxut sax moom 45 cinq Omès nee na 40 ans ku ko am gomis danga nga war a jaare say ati sport jeex rawatina nag lamb ji nii lu nekk muy arène. voilà mu nekkoon revue des titres ñu daal di ñëw nag ci suñu làmb Babacar ci xëtam bu njëkk tey. Mhm. ki ñu fa gis rek moo di Eumeu seen def li nga xam ne rek moom la ñu wax ne moom la euh, suñu président ba defoon wax waxeet. suñu maam wax waxeet waaw. moom dafa waxoon ne dootul bëreeti ak ki nga xam ne di Balla Gaye 2 mais fi mu nekk nii nee na pare na pour waat ko. ah waaw loolu day ñun yàgg nañu di ci wax waaw man moom dama mas di wax ne wala ma jàppoon ne loolu ci sportif ci adversaire boo xam ne maanaam ba ba ngay bàyyi làmb war a ngeen mën a daje jarut ngay teel a wax ne dootuma bëri ak moom mm-hmm, vraiment parce que teel a wax la ah. parce que situation yi day changé tey situation moo changé mm-hmm. situation ko dab mm-hmm. parce que Eumeu Sène ak Eumeu Sène euh, Balla Gaye dafa bokk ci li dundal Eumeu Sène si làmba defe naa Eumeu Balla Gaye jamono yi muy daan nekk ci lancé di daan kenn mënu ko daan teglante ay ndam ginnaaw bi ko Issa Pouye daanee mu jógewaat fa di daan di daan daan ay mbëru Pikine yu bari ba ñëw boobu Eumeu Sène am na fu mu nekkoon si làmba yaa ngi dégg xale bi ñëw dem ba mën nañu demancé ko ci lu bare bare ba ci kas kase lépp Eumeu Sène ñu boole ko Balla ñu naan ndax dina ci génnam du ci génn Eumeu Sène daan Balla Gaye jilli bu rëy Eumeu takkaat ci làmba dëgg defe naa loolu bokk na ci jël boobu la ko mooy tey lu baree bare lu mu am lu mu dabuwaat ci làmb mm-hmm. parce que Eumeu Sène ñoom Balla Gaye ak ñoom Modou Lo ñoo ko mujj dugg ci làmb mais demoon nañ ba xaw ko jiitu mm-hmm. ci ay kaseeg yooyu ak coow mm-hmm. kon mbër mu mel noonu nag su nekkee ci sa bii bu ngeen bokkee carrière muy dundal sa carrière ngay dundal carrière euh, defe naa ne bu situation ñëw ba ngeen dootu mu bëri ak loolu njuumte la woon te moom xamal na ko boppam dañ la koy accepté mais Balla Gaye 2 ku nekk bokk ak moom génération lamb war leen a boole pour man nga ne du ma bëri ak Balla Gaye 2 mhm. pour man yaa ngi yàqal sa bopp parce que li tax nga yàqal sa bopp daan Balla Gaye 2 bu ñu waxantee dëgg rek ci lamb mbër muy takk ngeen bëgg nga ko mhm. te boo bëree ak moom doo ci jëlee pertange te mooy dëgg deuxième combat ba itam noonu la demee woon mhm. Balla Gaye 2 bi ko Eumeu Sène daanaatee gis nga la mu jural ak Eumeu Sène fa la jógee ba am roi loolu moo tey li ma lay wax rek. Mhm. Euh, ami waykat Papa Ndiaye euh, kële nu mu tuddati am na waykat ba ca tas ca son wu fataa ba. na wax baaxul. Mhm. Papa Ndiaye cu daa wax baaxul waaw mu ne wax bal la wax waaw baaxul <laughs> wax na dëgg xam nga sama ba ma lay wax du mën a ñàkk kon <laughs> ëma mook bal la uh-huh. ku leen tëggaat itam day sot te defe naa ne seen tournoi taxawoon na mhm. la ko la ko yàq est-ce que jógul ci ëma seen tournoi taxawoon na te lañ ca fayoon ëmb seen. Mhm. man ci source yu ma am xaalis bu baree baree baree baree. dëgg la mais bon xëy nag. àddinaa ngi nii te xam na ne moom moo ma ko waxal boppam de mu ne ma bëre Balla Gaye de dafa neex mhm. parce que li tax muy day bëree bërekat la mhm. moom moo ko wax ci vidéo baa ngi fi Equivox TV loolu moom mhm. Balla Gaye mi ngi noonu waaye ba tey rek euh, ci ki nga xam ne nag moo di Modou Lo dañoo gis ne rek ki nga xam ne moo di amaa Balla Gaye de ak Sa Thiès dañoo def seen coalition mu mel nii rek moo Modou seul contre tous waaw loolu moom maanaam loo xam ne la mën nañ ko tuddee seul contre tous waaye du ma ne seul contre tous parce que li tax mooy ñett ñooñu suñu àndee dañoo war a ànd mhm. doomi Falaye Baldé doomi Double Less mhm. bu ñu bokkee benn génération di bëre di ànd di contact di prépare seen bopp mhm. defe naa ne loolu moom Modou la ko gën a xam ñaan dëkk Modou la ko gën a xam parce que Balla Gaye 2 ku ne xam ne ne wu jëm wi gën a tar ci làmb Modou Lo ci la bokk. dëgg la yaa dégg te ay rakki Balla gay de li ñu bëgg mooy daan Modou Lo ni ko seen mag defee. Mhm. Ama Baldé na la moom la yàlla li tey mu am sens su bëri ak moom kon defe naa ne ñooñu suñu àndee di contact di jàppale Ama mhm. pour mu daan Modou Lo loolu moom maanaam du du. maanaam dama naan du information. Mhm, si sama gis-gisu bopp. Mhm. parce que li ma jaaxal <laughs> waaw nit nag <laughs> sama la a du la wàcc sa ma demee nag noonu <laughs> ba tey rek ki nga xam ne nag moo di rëgg-rëgg waneti na boppam ca MMA ba rek moom daal gis nga ni ko suñu làmb titré mage Patrick lekk na Patrick. waaw lekk daal rëy sa waaye ci mun dig daa xam naa dur yi ko dóor métti na moom. dóor na ko torop gis naa mu attaqué ko dàq mm. ko waa ji résisté rëgg-rëgg force yi ko xeex ak moom xeex bu mettee métti loolu nag moo lay wane rëg-rëg itam mhm. lu la waaye mën a wax mooy mhm. la ma daan wax si moom rek des fois sax souvent nga wax ko ki amul dégg-dégg gisee ko neneen mhm. waaye ku jox cër li muy def la mhm. te ku am fulla la rëg-rëg ci lit simple mhm. doo ko gis mu di ci fo bu ci duggee fulla la ci wane ba ba ko defe naa li mu jël ci la ciy taxawee daanoo gu ci MMA duggee ak léegi fulla ak fayda la ciy wane loolu nag dañ ko soxla si doomu aadama kon ñu ngi koy féliciter ci ndam li moom bërki dem ci doomu Suisse bi muy koo xam ne wax dëgg yàlla sigil na Sénégal ndax ba mu ko amee am la mu njëkk a def mooy drapeau Sénégal la takk yëkkati ko la pour mm-hmm. peuple sénégalais bi tey par rapport ak événement bi nga xam ne nii moom lay jongante à l'étranger noonu la daf di ndaw nag te doole ju bëri na ah, la moom ma <laughs> waaw rëgg <laughs> dëgg la ba tey rek bi nga xam ne moo di Matar Ba moom daal xam le na ne ak saison bi li mu yéex a ubbi dinañ ko prolonger sax ba ci nawet bi maanaam ci nawet bi làmb ji dina dëgg ah, waaw mën naa nekk de parce que li tax mooy saison bi ku ne xam ne ne yéex naa ubbi ba pare toog nañ fi atum mm. yàlla bëriwuñu njiitu réew mi su waxee noonu rek ah dina dalal xelu promoteur yi ak ñi mhm. organiser yu mhm. xam naa ne dina xaw a metti ndax des fois xam nga dem ba war a suuf le làmb yàlla suuf bu bëri mhm. bi ko rogee dina métti waaye bon ak lu ci mën a xew rek comme arène nationale itam niñ ko liggéeyee gis naa la ñu xëppoo ay di ñëw duwaraat a kii doy na waar mais bon loolu lépp li mu ci jublu rek moo lay wan ne <laughs> moom itam li mu bëgg rek mooy que yi ku nekk sa xel dal nga nga xam ne li nga tëgg moom dinañ jéem def la tout pour jukkil la ko nga tëgg sa ay combat ni ko bëgg yàlla nañ ci jëli ndam rek amiin mhm. ba tey rek ñu dem ba fële ca Koutal tey ci ngoon rek ki nga xam ne moo di vieux production teg na un million waaw loolu muy lu am solo comme li ma lay wax rek lit mhm. lamb moom actuellement commencé na doxaat mhm. parce que rawatina nag lit simple bi moom boo bëggee dégg rek actuellement dominé na lit avec frappe bi ndax bu ñu ah? ne la 4 millions ci arène nationale. feneen ak feneen noonu lundi ñu ne la l'autoproduction mu nga jëm dangaan sàmbu jii di ñëw jax 3 mhm. millions wa mhm. terrain gaal gi mhm. kon lit simple bi actuellement dama naan mu ngi ci kaw lit avec frappe bi teg nañ ci loxo waaye nag di wax que ni xam nga démb dem nañ fi marché Salem <laughs> uh-huh. def fa benn micro trottoir Equivox TV voilà par rapport ak Fallou Ndiaye ak sargal yi ki nekk drapeau bool sans frontière bi loolu di loo xam ne wax dëgg yàlla amateuru lit simple yi rafetlu nañ ko te marché Salem googu dafa nekk marché bu ma xam maanaam ña fa nekk di dundu làmb bëri te ay borom lañ mais seen sport national lañ am kon Fallou Ndiaye tamit di ko ñaan journée subaam bi yàlla na si Mmh. waaye ba tey rek ki nga xam ne moo di abu nduur Ndour daal na ñëw rek ci combat rëg-rëg bi nee na moom gagné na waaye dafa am ay erreur yoo xam ne noté nañ ko ci biir combat bi waaw El Hadj moo ko waaw El Hadj Gaye waaw champion du Sénégal si wàllum boxe mmh. waaw moom euh, xam nga technicien mooy gis yenn faay yi mmh. mais man mi nga xam ne jàngu mënu ñuy dóoranteeg yooyu mënu koo gis daal lenn la ñuy gis dóor na ko daan na ko gis nañ ko kantaan nag taxawaay baak na mu waroon demee si kawam ak yooyu loolu technicien bi koy mën a xam El Hadj moom nag xam nga ki ki dem ba nekk champion du Sénégal ci boxe kon kooku xam na sport de combat kon defe naa ne faay yooyu ah ñoom nañu gën a jege staff Reug gën ko dimbali mhm. parce que doomu Sénégal la mhm. te couleur réew mi lay défendre mhm. Euh, ci euh, âge retraite mbër yi gis ne rek dañoo wax ne dañuy dem ba 45 ans euh, Abou Ndour daal di ci samp ab laaj ki nga xam ne nag moo di Omez Diagne daal di na ci dikk moom itam ne 40 ans rek ça suffit largement waaw Omez Diagne bu ñu waxee mooy Omar Diagne moom itam di technicien bu mag a mag a mag ci wàllum sport mooy directeur technique régional bu Dakar ci wàllum làmb kon ci AVM am na solo parce que day tàggat ay nit ba pare yore école de football. di former ay footballeur yoroon na tafaatin benn jamono. ci wàllum entraînement kon moom xam na tamit li muy wax. xam nga ami bëgg du tere ñu xool li yoon. parce que am na loo xam ne moo jaadu. xam nga làmb daa metti sport de combat sax laay wax sport individuel la. parce que loo xam ne la bu duggee ci giw bi dóorante la épreuve de force la. loolu tamit laaj na yow mi koy def nga apt ci côté yépp quarante cinq ans nag nit ki su ko amee moom mooy xool ndax waaye itam defe naa ne war nañoo xool ci wàllu médecine ak lépp li composé luy war a ma tax ñu xool ndax lii yoon la wala du yoon waaye omes li mu waxee jar na bàyyi xel parce que nit ki nag booy jongante ba am 40 ans dama naan loo amu kon est-ce que di ñu ko amati ah yaakaaruma ko waaye nag bu ñu am na am loo xam ne nag waaye tamit ku sa doole tamit mooy li ma la wax rek mën nga dem ah. waaw waaye nag du du tere itam ay règle day am ah yéeg sa doole du tax du tere ñu bàyyi ay règle am fi dëgg parce que nag ami mhm. am na loo xam ne nii bu la neexoon léegi dem defi ko xam nga lu la ko teree def règle réew mi moo la ko tere maanaam yoonu réew mi mhm. parce que réew mi da ay sart sport bi tamit fa mu ut am ay sart mhm. waaw du ku nekk rek dañ lay bàyyi parce que bu doon tey xam nga Balla Gaye de wala Modou Lo sax ñoo génn ci mbedd mi kuñ dajal duma la bala ñoo xeex dañ leen a fay kon loolu ay règle la kon yooyu nag nañ ko jéem a topp rek mhm. xool li yoon ñu def règle amatoon xam nga fuñ jëm voilà kon noonu laa dina tudd di nga tase ak kenn du ci man dara <laughs> kenn du ci mën dara noonu la fa demee allah xibaar yi jaar fa ndar képp looy tàggatoo. <laughs> waa di sant yàlla di bëgg ñi ñuy bëgg rek. Mhm. encore une fois di bëgg ci waa marché Asalem rawatina ku mel ni Moussa Sène foofu ci mhm. marché Asalem. ah de moom gis naa fa sax samay gaay man itam. waaw gis nga am na fa ku dëkk Gaye Ndiaye. Ah. <laughs> voilà ma ne ko yow ami Diouf nga. <laughs> di nuyu ñoom parce que ñoom ñëpp dañuy dund làmb mais mhm. kenn du Omar Tawa moom mi may solal lii. ma koy nuyu di nuyu ki tax ma xam ko muy Saliou Khoule. ndax ku tax nga gën koo gënuloon soo goree ne ko jërëjëf te Saliou Khoule moom moo tax ma xam Omar Tawa yemu ci Saliou Khoule Saliou na yére bi muy sol ci yaramam yëkkati jox ma ko ma di ko sol kon kooku ku baax la ci man ma mm-hmm. koy nuyu di mm-hmm. nuyu Omar di nuyu gaa yëpp ñoom am di borom kolobaan mhm. am di borom iPhone yi maa ngi koy nuyu di doomu ndeyu saaliw xulle yaa ngi dégg di nuyu képp koo xam ne daal mhm. yaa ngi ñuy suivre à travers Equivox TV di ñaanal ñëpp jàmm mhm. di wax di wax ne rek comme ni ngeen ko xamee rek ak Babacar moom lamb ngeen di am ni mu gën a neexe loolu lañ ñu fas yéene te itam des fois nag dama ci ànd sama jigéen bu ñaawul bi Ami Diouf mu gunge ma waaye muy nuyu tamit sa xarit ba sa soppe ba Malick Ngom Malick Ngom waaw maa ngi koy nuyu borom nga lax bi waaw <laughs> ah kenn du moom dañoo ñëw guddi gën a xiif ah. waaw balde xam nga rek moom yemut balde dajji nga lax bi def ko ci bool ñu lekk ko déedéet kay noonu de la ñu def karamaak yàgg ma loolu indi nañ fii nga wax man ñamuma ko <laughs> kon na la Malick uta Malick kon laajal Malick la ngalax na ah? Malick ngalax bi du ñëwaat dañ koy biisaat kon jeex na dina la defaral ngalax kon baax na voilà mbokk téléspectateurs yi nii lay nii lay demee saa su nekk rek fii ci Equivox TV la télévision à portée de main ñu leen jox yi daje ëllëg incha allah ci beneen numéro jërë ngeen jëf